Limota moo the golden boy of Senegalese music Wally vidéo Balago Sek est vraiment le champion incontestable et incontesté de YouTube Bimana, Wali Sek, YouTube tendance trending on YouTube class Mabi Walisek mooy numéro un ci musique vidéo yi comme ni mu leen ko waxee. vidéo bi bees bi mu génnee doo bi afraid bul tiit bu ragal fi mu nekk nii mooy numéro 3 ci YouTube ñaari théâtre rek ñoo ko raw benn bi idole la beneen bi mbetteel c'est la première fois deux mois et demi trois mois ñu gis benn vidéo musique vidéo mu jël numéro 3 ndax kat bi gën a sori.

déjà Wally Seck wane na dooleem. vidéo clip bi fi jaar yëpp pour nga am 500000 vues sax dafa jafe woon gis nañ ne fi mu nekk nii wuy wàllu bu lës diwaan boobu mi ngi waaj a génn trop am na 500000 vues gis nañu clip bu au maman bu Akhlou Brick am na 200000 vues si 6 jours gis nañu clip bu euh, Abiba sargal jigéen boobu tamit am na presque 200000 vues mais nag boo gisee Akhlou Brick ak Abiba. ñoom seen clip am doole noonu ñoom dañu am chaîne YouTube Abiba dafa am chaîne YouTube am na 104000 abonnés Akhlou Brick ba muy mujj xool am na nañu 72000 abonnés kon ay Sidy Diop il faut que mu ut chaîne YouTube ndax Sidy Diop génn na fi ñaari vidéo benn bi Chou bi la mais Chou Baby def na ñaari weer duggul sax ci trending Sidy Diop bii mu génn fan yii sax. tane na am sorry, bi ndax boobu maa am vues waaye ba le couple mabo. am chaîne YouTube plus de 100 000 abonnés moo tax audio bi ñu dugal alxayri moom mi ngi am est-ce que amul léegi am vues vraiment mais Wally Seck dafa ñëw daal di vraiment te Wally Seck génneegul vidéo yi am na sama benn abonné abonné taxi ak yóbbante moom lay def génne ko moom dama leen di garanti ne yooyu dinañ nekk numéro un. Wally Seck ñëpp xam ne dafay préparé le 16 benn show bu mu war a def grand théâtre dafa naa sargal jigéen dafa war a dem tamit Londres clip bi dafa mel ne loolu lañ ci wax Londres la war a dem Angleterre kon booy bi fi mu nekk nii calendrier chargé na vraiment mu ngi joob mi ngi génn ak son yu nice lii moo tax ma tuddee ko the golden boy of Senegalese music maanaam xale wurus xale ngalam bu musique Sénégal wax dëgg ndax da ngay xool ku mel ni Sidi Diop génnoon na fi benn vidéo bi euh, mon choix ba mu koy mujj xool mais boobu léegi mu am 5 millions de vues daaw la ko génnee am na beneen bu mu génnee vidéo boobu boo xam ne am na 700000 vues te boobu daaw la ko génne woon mais fi mu nekk nii dafa mel ne li fans Wally Seck wax dëgg la ñoom ñoo ko doon seetaan seetaanatuñ ko gis nañ Sidi Diop génn fi.

Euh, carrière il faut nga foog Instagram Wally Seck ba muy mujj xool Instagram am na 300000 abonnés xam naa léegi war na ko romb ku mel ni Titi musul am chaîne YouTube moo tax fi mu ne kenn déggatu ko kenn déggatul Titi c' est que presse à la bopp il faut ngeen am seen fans bopp ngeen di waxtaan ak ñoom ngeen di bindante loolu fans yi dañuy xam ne yëg nga leen mais fans yi boo faale wu duñu la